comme disait un penseur universaliste. Et fort de cet enseignement céleste, il me plaît également de rappeler que la femme est l'incarnation de la plus précieuse et de la plus prestigieuse des valeurs qui font l'humanité. Elle est la collaboratrice privilégiée du Seigneur qu'il a choisie comme laboratoire, puis comme canal pour assurer la durabilité de l'espèce, de l'espèce humaine. De ce fait, la femme se doit d'être fière et de mesurer le poids de la responsabilité qui pèse sur ses épaules. Pour ce faire, elle est appelée à cesser d'inaugurer les chrysanthèmes en se hissant à la hauteur de ses fonctions dans l'espace social. Certes, dans notre pays, La femme contribue depuis toujours et de façon significative aux dynamiques de changement positif. Mais il faut oser le dire. Elle continue de traîner des tares préjudiciables à l'avènement d'une société qualitative à tout point de vue. La femme constitue en fait l'école par laquelle la communauté espère éduquer sa progéniture en vue de la préparer à devenir une ressource humaine de qualité capable de relever les plus grands défis. En conséquence, la femme est la gardienne et la courroie de transmission de nos valeurs de Jom, de Kersa, de Sutura, de Yermande, de Faïda, de fulla je disais de fulla de fit et de muñ de piété de chasteté bref de toutes ces valeurs qui cimentent un édifice social respectable je m'adresse aujourd'hui à toutes les femmes de valeur qui tiennent à perpétuer le legs laissé par ces dignes et vaillantes femmes qui ont marqué à jamais l'histoire de notre cher pays. Je veux nommer Mam Fawa Douele, Mam Diara Bousso, Mam Astou Djankha, Mam Rokhe Ndiaye, Mam Kumbandoy, Mam Astou Sophie Dem, maam nda tey yàlla maam njëmbat mbooj yaasin buubu les femmes de Nder Aline Sitoé Diatta Adja Rose Bass Adja Caroline Faye Adja Aram Diène et tant d'autres encore. Dans l'espace politique, les femmes, à l'image de ces pionnières, continuent leur formidable aventure dans leur ascension aux sphères les plus hautes des institutions de notre jeune État. Elles sont de tous les combats pour participer à l'amélioration du sort des Sénégalais en général et de leurs sœurs en particulier. En effet, avec l'avènement de la loi sur la parité, la voix des femmes devient de plus en plus audible dans l'espace institutionnel et elles sont les porte-voix de leurs sœurs sans voix. Elle représente 52% de la population et en constitue pourtant l'une des couches les plus La prise en de leurs difficultés doit être au cœur des politiques publiques. Or, il n'est point besoin d'être chercheur de vie et de travail des paysannes de Bunkiling, des étudiantes qui ont quitté pour vivre dans l'angoisse et la précarité, dans des squats ou dans la promiscuité des résidences universitaires, des lavandières de Ndiaganiao, des vendeuses de poissons sur les plages de Yoff, de Soumbedjoun, de Getndar, de Fasboy, de Kayar, de Joal, du marché Diola, du marché central de Pékin, du marché de Djaoubé, etc. Chers congressistes, les foyers sont disloqués. La violence et la pauvreté s'accentuent. Nos enfants et nos frères meurent par milliers dans les océans, ne voulant plus vivre dans l'illusion d'une vie meilleure avec les dérisoires bourses familiales et les financements mirages comme la DER. Le PUR, parti avant-gardiste et de valeur, prône une redéfinition de la place et du rôle de la femme dans notre société pour réussir une alliance homogène de la triptyque tradition, religion et modernité. Aujourd'hui, les femmes du PUR sont convaincues que le professeur Elhadj Issa Sall, avec son programme Pur Sang, est le meilleur candidat pour régler les problèmes du Sénégal. par ma voix, elle s'engage à l'investir ici et solennellement comme candidat du PUR pour l'élection présidentielle du Vive le Sénégal, vive le PUR, vive notre candidat, le professeur Elhadji Sall. ñu may ma tamit ma nuyu suñu mbokk yi nekk ci di suñu invité yi fii te nekk ci bitim réew am nañu ci déggul wolof am na ñu ci déggul français te ñu bokk ci événement bi. Ladies and gentlemen, my fellow members of PUR. I I extend my greetings to all members of PUR abroad. people from Gambia, from Ghana, from Nigeria, from United USA, from South Africa and everywhere in the diaspora. Let's work together for solidarity, for justice, and for true development of our country with the Professor Elhaji Pure forever. Quero também agradecer todos os membros do nosso partido que estão no países como Guiné-Bissau, como Portugal, como Angola, Cabo Verde, Brasil e outros lugares lusófonos. Devemos haver a mesma luta para o desenvolvimento do nosso país. Viva PUR, avec le professeur Issa avec le pur on s'engage maa ngi ñaan tamit jigéen ñi kart bii ma yore ñu góor góorlu ci barkeelu ci ku ci nekk jënd ko denc ko précieusement parce que ah ku bëgg a bokk ci histoire di nga xam ne ñun jigéen ñi dinañ yóbbu El Hadji Issa Sall incha allah ca biir palais ba li ma ci li ma ci bëgg a yokkaat tuuti rek ci wolof mooy ku iññaane sa ndono sa deewin ñaaw lu ëpp ñaar fukki at ñu ngi jàppale ay parti ak seeni leader ñuy jëfandikoo suñuy xalaat ak suñu expertise su président de parti Seydi Mouhamadou Moustapha si wante wante ku yegg ba si njombaxtan ga rekk ba max échelle bi wëlbati ko def ñu noonu ñu jëlaat nag suñu responsabilité ba mu mat sëkk samp suñu raaya ci biir làng gi avec justice développement solidarité avec un professeur Issa Sall mbër mi màgg na puur a ngi nii te li feeñ nii mooy gën a tuuti ñañu gisagul mbër mi màgg na professeur samp nañu suñu raaya ci diggu làng gi ñun borom xel yu sell yi ñun borom loxo yu set yi ñun borom yéene yu yaatu yi bokk kook yéen waa réew mi